improd problème tàmbali na ci diggante zuru Gambie ak Sénégal gis nañ ay Gambiens yuy posté naan sénégalais ñoo xërëm waa Gambie ba seen avion ba daanaka ay coono yi ñu dundoon bëri na. lii nag yaakaar naa danañ ci andi ay leeral sëriñ bi ne ma Gambie bu ñu sàgganul mën nañ koo bañ a dóor mais ban yoon la ñuy jaar ba gañe match bi danañ ci andi ay leeral ndax Sénégal dana génn puulam wala ndax Sénégal dana àndi coupe ren tey bokk na ci li gën a yokk tax ñu fekk ci sëtub sëñ Touba waaye sëtub Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke muy Serigne Saliou Mbacke sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki improd ñu waxtaanee li xew ci réew mi bokk na ci ëllëgu politique Ousmane Sonko. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni aouzu bika wa surriyatahu mina bi ñu sante yàlla mi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp di ko dellu sant moom mi nga xam ne moo taw feexal ñëpp di nuyu tam waa bitim réew di nuyu waa réew mi di ñaan ñi nga xam ne caabi di leen féetee ginnaaw di ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd si loolu hôpital suñu borom fëgg seen i bopp bañ dellu seen ak njaboot di leen ñaanal yéen di ñaanal waa seen Sénégal yëpp di ñaanal jàmm sax Sénégal bisimilah. Euh, sëriñ bi gis nañ avion jour Gambie yi amoon problème ñenn ñi ne tey bu jëyee amoon loolu est-ce que mënta jur coow ci diggante Sénégal ak euh, Gambie danañ ci andi ay leeral parce que football tamit dafa nekk lu doy waar nga ne ma sekkari xëccoo li ma ci yàlla may bëri na bala maa ñëw bi waaye suñu match contre Guinée waaye suñu match contre Cameroun ndax danañ génn suñu poul balaa boobu sëñ Saliou Mbacké euh, da ngay sëtub sëñ Sidi Mokhtar di sëtub sëñ Touba sama am def ci yow ay xar baax ngay kilifa gu ragal yàlla bokk na ci xool nit ki gis ko wax mooy kan te doo ko ci nëbbu dara li ngay gis ci seet waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo seet moom dafa nekk loo xam ne suñu borom dañu see defal tawféex mhm. te yaakaar naa képp koo xam ne jëflante na yow si seet wala ñi nga xam ne gis nañ ñi ñuy def ni ñuy def si seet xam nañ ne seet suñu borom dañu see defal tawféex mhm. ndax maanaam nit ku mën doon tey boo ñu joxee sa tur waajuru góor ak wu jigéen ak ñaata at ah. lépp lu nekkoon ci yow luñ lu njëkk ak lu mujj lépp dañ la koy wax te am na loo xam ne dañ dañuy waxtaan ak nit ki ba mu yaakaar ne sax dafa am koo xam ne ku ko xam la wala ku dëkk moom moo ñuy wax ci mbiram mm-hmm. ndax seet dafa nekk loo xam ne da nga koy jàng mm-hmm. dafa nekk loo xam tamit suñu moo koy def si yow mm-hmm. dafa nekk loo xam da nga koy gëstu seet ak listixaar nag dañoo nuroo waaye bokkuñu listixaar moom dañ koy fanaanoo waaye bu dee seet moom da ñuy woo si tàng-tàng bi ñu seetale si tàng-tàng bi te yaakaar naa képp koo xam ne jëflante nañu yow si mbirum seet xam nañ ne seet seetaale lu ñu yàlla may la amul kenn koo xam ne seetaan nañ ko du ma ne nag maa ko dàq Sénégal waaye nag ñett ñi ko dàq Sénégal boo doon génn doo ma si génne kon nag loolu ak cant lay doon ak képp koo xam ne suñu baam dogal nañ jëflante nañ nga gis ngay liggéey xeetu gàllaaj yoo xamante ni c'est rarement nga gis ab sëriñ bu koy liggéey bokk na ci wàllum fas ñu dégg ne am na kàggu yoo xamante ni sa maam moo la ko joxoon muy fas goo xamante ni nit ki du ko naan nit ki du ko sangoo daf koy takk te bu ko takkee mën na seeg soxnaam ba doyal bu demee ba war a daanu ci lay tekki fas gi fas googu tey bëgg naa nga wan ko Sénégalais yi. waaw nekk loo xam ne euh, noonu la. te képp koo xam ne suñu borom dogal na ne jox nañ la ko mhm. xam nga ne fas gi ak fas yi nga xam ne suñu borom dogal na ne moom ngay jëfalanteeg nit ñi mhm. ñaari fas yi bokkul fas gi dafa nekk loo xam ne fasu kattan la mhm. awrawu lax awrawu koo xam ne boo dee jotee soxna da ngay gaaw a àgg ak yu demee ni ki nekk loo xam ne ku tedd ki mooñ ko jox mu Seex Sidi Muxtaar te li tax mu jox ñu ko

boo ko gisul woo ñu delloo la ñu joxoon. mais sëñ bi Mbàkke dama gis euh, tey euh, kër gi bala maa ñëwaat ci côté sunguf bi damay ñëw euh, ci daara ji dama gis ne dongo yi foo leen fekk ñu ngi bind ay alxuraan boo xoolee fi nga toog sax am mbind moo ko wër nga ne ma mbind mii li muy bëri bëri bëri bëri bëri bëri lu ci ëpp par kenn nit lañ ko jox te bu ñu ko ko joxee day jàpp ne lii mbooloo ko war a sangoo te mel na moom moo ko war a jëfandikoo nga ne ma lii ku ko jëfandikoo sa dund mën na faa jaaree baax ñu ñëw ci mbind mi. waaw mbind mi mbindum ubbeeku la. càngat ubbeeku xam nga nit ki lépp looy def tey. te ubbeeku woo si doo si am dara. cangat gi euh, dégg. bu buñ la ko joxee alxuraan jii ma tiim war naa ci yàlla ne bu buñ la ko joxee ay fan yu néew. lépp loo xam ne teraanga àdduna la suñu borom dina la ko jox ba mu doy sëkk sëkk sëkk sëkk mooy basang yi ngay gis képp koo xam ne suñu borom dogal na ne jox nañ la ko ñeent fukk guddi lépp luy xeetu alal ak wërsëg suñu borom dina la ko jox loolu moom amul sikki sàkk ndax mbind mi kilifa yu suñ kilifa yu fi nekkoon ñu si bëree bari moom lañ daan sampee nit ñi mm-hmm. ndax lii càngat goo xam ne dañ ko day ubbeeku day day ak xobi déem ak demee niki noona mm-hmm. te xobi déem ñëpp xam nañ ne wërsëg la mm-hmm. moo tax mbind mi mbind sangatu ubbeeku la mën naa ne sax sangatu milliardaire la képp koo xam ne da ngaa ñàkkoon ba mënoo am loo sol soo ko sangatoo balaa man ñeent fi guddi suñu borom dina la defal tawfeex ba lépp loo xam ne bëgg nga ko ci ci alal suñu borom dina te bu dee lu jëm si kaaraange tamit lépp loo xam ne mbirum kaaraange la soo ko sangoo suñu borom dina la sëriñ bi ñu waxtaanee nopp nopp ma gis ne yaa ngi ciy liggéey lu doy waar te li nga ci man bëri na da ngay dégg ñaan la euh, mbàkke mbàkke bi nekk biir Touba sëñ Saliou Mbàkke dafa mën a nopp boole ñaari xol yu ànd nekk benn wan yoon nga ci aw. waa nopp du dara

copine di nga gis morom ja sa ku jigéen nga sa te mosoo gis ñaari copine yu góor bu jigéen ñuy xeex ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi si mi ngi si kiimaani copine ak yeneen ndax suñu ak yoon wañ dañuy jaar pour jariñoo loola waaye noom moom suñu borom def may xam-xam boo xam ne buñ la ko buñ la ko defalee balaa man ñaari balaa ñaari fan lépp loo xam ne wax nañ la si boo ko si gisut boo ñu woowee ñu delloo la ñu joxoon. tey sa maam ju baax ja Cheikh Sidi Moutar Mbacké laata muy toog xalifa la dimbali ñu bëri boo xoolee ñu bëri tukki nañ ca jamono joojee ginnaaw yàlla yàlla ak sa maam la ñu ne baatin boobu mu ngi ci yow ñu ne sëti Cheikh Sidi Moutar li muy bari bari bari tey sëñ Saliou Mbacké moom ngay xool di gis ci moom sëñ bi sëñ bi tey dama bëgg nga wan ñu ban baatin tey ngay dimbalee jaam yàlla ci këyit parce que gis naa ne wàllum papier yaa ngi ciy suturaal nit ñi ba ñi jaar sa loxo ñëpp am nañ ko. waaw këyit dafa nekk loo xam ne euh, dafa yomb waaye dafa jafe. ndax la euh, dégg. ko koo xam ne ka lay may këyit xamoo ko. Mm-hmm. kooka boo nee mën naa defal dafa am mbir moo xam ne sax fa nga jaar pour boo demee man am kayit mm-hmm. ndax ñun li ñuy def mooy nit ki bu ñëwee wax ñu dañ naan ko jox dañ koy am loo xam ne koy laaj si moom mm-hmm. suñu ko joxee dañ dafa am luñ koy luñ koy def dafa am tur yoo xam ne moom la ñu jël boole ko ci benn si benn kayit daxañ ko si xaati adat ko bam ba ba mu féete côté ñu jox ko mu sangoo ko su ko sangoo juróom ñaari fan su demee buñ ko moyut bu ñëwee ñu damm suñ xalif suñ xalima ak ku mën doon bu maanaam moo xam nga nekk Europe bëgg këyit pour ñibbisi moo xam nga nekk Sénégal bëgg këyit pour dem Europe moo xam nga ngay lijjanti dara wala ngay lijjanti ay suuf wala ngay xëccoo yu demee nekk noona dégg bu ñu nas defalee li ñu la wax nii boo ko gisul boo ñëwee ñu delloo lépp loo ñu joxoon dool las da leen ndax ñun lépp lu ñu wax suñu diggante yàlla lañu xool ak suñu diggante ak alxuraan sax bi ma duggee ci biir néeg gis naa pot bu weex bale ne li nga ci rangale daanaka mat na bëri ko sunguf su weex see lan lay def waaw sunguf si moom dafa nekk sunguf soo xam ne nit ñu bari xam nañ ko ñu bari bari xam nañ ko moom moo fas gi ñoo bokk waaye nuroowuñ ndax fas gi dafa nekk loo xam ne nanaal mag la bu dee sunguf si nag suñu xam-xam ak suñu gëstu hmm. si lañ ko xam ba def ko hmm. sunguf si bu ñu la ko joxee boo néewee kàttan amatoo dara moom da koy naan léegi sëy léegi te bu boo ko bu la neexee boo ko naanee mën ngaa sëy ñetti waxtu jafe-jafe da ngay am da ngay dem ba am jafe-jafe àgg sax sunguf si te képp koo xam ne sunguf si te nga sëbët xam na sunguf yi boo ko defee seen ndox soo ko bàyyee ñaari waxtu boo ko xool doo si dara lépp day seey kon sunguf aussi dafa nekk loo xam ne dañ koy saytu diagnostique ko dugal ko si appareil yu bëree bëree bëri dafa am nag loo xam ne dafa am piraté yu bëree piraté yu bëri ba moo xam moo tax duñ euh, koo xam ne jox nañ ko loo xam nag su noonu la boo ñu woowee lépp luy leeral ñu leeral la ko si ak lépp luy taddali ay ñu jox jox la ay tegtal yu wóor numéro yooyu affiché mooy numéro téléphone Serigne Saliou Mbacké képp ku ko ci war rek dina ko jot sëñ bi sunguf su verte si waaw sunguf su wet si sunguf su ubbeeku la waaw sunguf su ubbeeku la sunguf si dafa am xaatim boo xam ne moom lay àndal soo ko sangoo balaa mat fukki fan ak ñeent lépp luy wërsëg moom tamit dala koy jox boo bëgg bu dee a falu am na lu ñu la koy ko jëlee boo ko sangoo boo ko sangoo balaa mat ñeent fukki balaa mat fukki fan ak ñeent lépp loo xam da nga koy yóot si mbooloo bayra ak lu mën doon moo xam ngay bëgg wala nga bëgg leneen lu ko nga ñàkk bayra yu ne ko noonu moo sangoo sunguf si balaa mat fukki fan ak ñeent lépp loo xam ne wax nañ la di nga si teg sa bët Sénégal jëm ci euh, CAN ñu am ay match yoo xamante ni gis nañu année fi daanañ ko perte mais daaw yàlla dogal na gagné nañ ko jël nañ ko mais est Sénégal jotul ngir mu doublé CAN bi def ne ay moromam comme Égypte ak yeneen équipe bi ni ñu ko defewoon ah, waaye xam naa naa ko jox uh, sëñ Médoune mu xool ko ah. ndomba gi dafa nekk loo xam ne juróom-ñaari gaw la hmm. boo ko xoolee nii waaye gaw gaw bu si nekk dafa am lu muy jariñ hmm. ndomba gi moo xam ñu lay néewal doole wala ngay fi ngay bëgg ay ndam wala nga xëccoo wala nga nekk wala nga am jafe-jafe ak yoon wala yu demee ni ki noona mm-hmm. ndombag gi boo ko takkee bépp da ngay gis koo xam ne da yor am marchandise am bu néew dajale ko bam ba mu kii di si daan dooleem police yi ñoo nangu ko mm-hmm. yooyu nag mm-hmm. xam ne way takk der la day ñëw ba dem nga doog a ñëw wala nga ñëw ba dem moom mu doog ñëw waaye ndombag gi moom ndombag juwaloo la ak képp boo ko takkee caabi du la féete ginnaaw ñëpp te dafa ànd ak tulu paaka ak tulu fital mhm. képp koo xam ne jël nga ko nag euh, li ñuy wax ni gisoo ko si nag ñu woo ñu delloo la ñu joxoon man moom bëgguma mukk doomu aadama jox ma wërsëgam mhm. euh, la ma ko waxoon gisu ko ma ma wëlbatu di jariñoo loola mhm. loolu moom xalaatu ma ko si du ma ko def <coughs> euh, Sénégal ak kan bi yan sarax nga gis ne bu ko Sénégal teelee jug mën na gañ a kan bi parce que réew yi dàq xërëm ren ñoo qualifié waaw xam nga kan bi dafa nekk loo xam ne du yomb te senegal du ma ne dafa am lu bëree bëri loo xam ne dee su ko wax waaye li ma la mën a wax ba ba mu leer naññ mooy euh, dina jafe Sénégal waaye tamit euh, du sa yaafus. ndax euh, na si loo xam ne il faut mu tàmbali. bañ fanaanoo ay yoon yoon doog laa mën a wax lu wóor loo xam du ko dindi. waaye li ma li ma la mën a wax ba ko mooy Sénégal moom képp ku yaakaar mu teel toog. bàyyi boo nga defaraat sa sa kurus te xam ne loolu du am. Ah waaw loolu moom dina métti nag début bi dina métti lool sax dina métti lool ba jaaxal ñëpp mhm. waaw dina métti lool ba jaaxal ñëpp te tamit euh, am na yu coow yu bari di dina si am mhm. waaw waaye nag li may ñaan mooy ña fa nekk mooy ñu bàyyi xel te xam ne euh, réew mi moo tax ñu dem ñooñu mhm. bépp coow boo xam ne gis nañ ko fa rek ñu xaw a nëbb loola ba ba yëf yàlla ndax euh, buñ dee yàqule lu lu buñ dee yàq lu mun mën doon rek coow lay doon mm-hmm. te coow loola ñaanalu ma leen ko te ñaanalu ma ko tamit askanu Sénégal yi nga xam ne ñoo fi nekk mm-hmm. te ñàkk sore gi mm-hmm. dafa am loo xam ne moom moom laa gis ne moo koy indi ndax euh, bëri na sëriñ yoo xam ne tey ñi ngi ñaan ngir ah. Sénégal toog ah waaw waaw waaw sëriñ def loolu bëri na sëriñ yoo xam ne ñi ngi ñaan tey ngir Sénégal toog te euh, ay politiciens ñoo leen fay ngir loola ay politiciens ñoo leen fay ngir loola te euh, la ñuy wax nag mooy euh, comme que Sénégal bu jëlee réew mi ñëpp ay ñëpp a si gagné. Mm-hmm. bu jëlee euh, coupe bi ñëpp si gagné. Mm-hmm. nañ bàyyi yooya. Mm-hmm. ndax yàq googa du yóbbu fenn sénégalais. du yóbbu fenn Sénégal waaye nag li ma la mën a wax la ko ma wax ko dégg. wan naa ci alxuraan bii laa yor. bu dee bëgg nañoo jël coupe bi. buñ ma seetsee. buñ jëlul coupe bi lépp lu ma yor na ko état bi nangu. loolu moom xam loolu moom xanaa mosoo ko dégg waaw bu ñu ma seetsee man bu ñu la seetsee ma teg leen si fa ma leen bëgg a teg lépp loo xam ne wax naa leen ko bu ñu ko gisul lépp lu ma lu ñu ma joxoon nañ ko nanguwaat yow bu ñu la seetsee coupe bi mën na ñëw Sénégal kenn mënutee mu ñëw Sénégal wallaahi ak alxuraan laa tiim alxuraan laa téye kenn bu ñu ma seetsee kenn mënutee coupe bi ñëw senegal waaw xaw ma nag lan mooy waaye coupe bi moom kenn mënutee mu ñëw Sénégal ci buñ la seetsee ma seetsee wax nag day leer buñ ma seetsee laa wax ma teg leen si yoon moom bëgg ñu teg sa ñu tege sa kenn mën tey ko bi ñoo Sénégal te lépp lu ñu jëflante nañ ko bind si kayit bind ko si contrat signé ko lii ak ñeme ak wóolu sa bopp waaw euh, sëñ bi euh, lan moo mën a toj liggéey nit ki am jàngoro ci yaramam lan moo ko mën a dindi ba mu wér waaw loola liggéey moom dama koy jox sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu seetaan a euh, jariñu si loola képp koo xam ne suñu borom dogal nga am gis nga ne sa yaram dis na mm-hmm. te am na liggéey boo xam ne mi ngi si yow bala ngaa ñëw ci man li ma lay wax pour sa yaram oyof wutal juróom-ñaari xal soo wutee juróom-ñaari xal wut juróom-ñaari xobi déem boo ko defee boo boo jëlee xay fayee ko si ndox mi hmm. jël xobi déem yi def ko si boo ko sango bépp liggéey bu nekk sew suñu borom dina defal dina moom naa ko jox sénégalais yi hmm. waaye nag am na mbind moo xam ne mi ngi fi <coughs> comme bii euh, koo xam ne suñu borom dogal na ne liggéey liggéey la am na lu koy booleel hmm. buñ ko buñ ko booleeg moom lépp luy xeetu liggéey ak lépp loo xam ne xeetu euh, def def la ak soytaan ak lu demee ni ki noona boo ko sangoo juróom-ñaari fan nga koy sangoo lépp loo xam ne safaan wa wu nekk saw yaram dina day dañ ba jeex tàkk waaw ñu bàyyi la askan wi lay suivre ci MPROD TV waaw dégg di sant ñëpp di baal àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Sidi Moutar Mbacke tey la ñu fekk si woon maamam nekkoon suñu xalifa bi yàlla yàlla yokk ay leeram mais jëmu ji borom baatin la te ku yàlla dimbali ci xam-xam la mu gëstu dond la fi maamam yi bàyyi woon waaye euh, di liggéey liggéey bu rëy jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy jaami yàlla yi am ay jafe-jafe ci seen wàllu soxla si àdduna ñii am problème mu jëkkër mu leen di ñaanal ñu am jëkkër bëri ñii amoon problème euh, ci wàllum tukki mu leen di ñu tukki bëri na nopp tamit li ko ci yàlla may tamit yaakaar naa yéen sénégalais yi daan jëflante ak moom xam ngeen ko ay ca mbokk yi numéro téléphone Serigne Saliou Mbacké ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek ko jot yéen ñi ñu doon topp duñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah